bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin al-makiin wa alaa aalihi wa sahbihi zawil jalali wal tamkiin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kilifa yu tedd yi yu tedd yi suñu mbokku journaliste yi mbokku Sénégal jigéen mag ndaw ak góor ñoo ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziar ci ginnaaw dégg nañu ay kàddu yu jëm ci wax bi Sénégal fi yëpp kilifa réew mi moo fi nekk kenn du masa daganal góor jigéen ñuy wax loolu nag li ñu jublu mooy démarche bi ànd sàmm jikko yi jël ñu bëgg koo woyofal ngir boo ci àddoo ñu ni xanaa ñii dégguñu nee nañu président nee na du ànd sàmm jikko yi xamle ni nit dee su ko jàppe ci li mu wax waaye ci li mu jëf lañ koy jàppe te mbir mi jëm ci LGBTIQ plus li ci waa réew mi di taxawe ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk lan cay wax ak liñ ciy def dafa safaanal bokk su ko defee loolu danañ ko leeral ba mu leer ci boppu Sénégalais yépp lu mu ci waxit firnde ji koy leeral yi ngi ni tiim mboolem bi ñu demee ci quarante cinq département yi dem ci xalif généraux yi dem ci lenn ci njaboot ci église dem ci roi du sud seeti kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk politique syndicat yi ak ñi yor association yi ndaw ñi wala jigéen ñi mbaale kon bàyyiwuñu kenn seetewuñu kenn yóbbaaleel nañ leen ay firnde ay document yoo xam ni dafay tegtaleen yi ñuy wax banqaas bi ñuy wax Nations Unies moom moo yëkkati ab yan ñu koy wax agenda boo xam ni daf koo bëgg a yan état yi ci àdduna bi yépp te Sénégal fi mu nekk nii nangu na ko ba tàmbali di ko doxal loolu dañ leen ci jox ay leeral su ko defee loolu mooy doon pàcc bi njëkk ci waxtaan wi li ci tege nag leeral fi mu fi jaar ak kilifa yi ci ànd su ko defee nag mën a wax ak Sénégal ci fan lañu jëm ak la ñuy xaar ci Sénégal yi ñun ñëpp ñu maase doo taxaw ci kon li ma doon wax léegi nii mbir mi ab liggéey la wala agenda la bu Nations Unies jël xam ngeen ni bu ngeen jàngee li ñuy wax déclaration universelle des droits de l'homme xët ñaar wa article dafa wax ne mboolem ku ñu lim ci nii ñuy bëgg a wax am nga àq ak yelleef te kenn sañu la koo xañ boo ma nag ba ñu limee lim na nit ki ci juddoom lim ko ci réew mu dëkk réew lim ko ci xalaat yu mu mën a am ci siyaasa wala leneen lim ko ci jigéen la wala góor la lip ko ci am na alal wala ñàkk na ko ab garam nu mu mel ku mu neex demal ci article 2 bu déclaration universelle des droits de l'homme 1948 waaye kenn waxu ci woon góor jigéen ñeent fukki at ak ñaar ginnaaw bi nag 48 ci la benn banqaas ci Nations Unies muy organisation mondiale de la santé ci la daal di li ñuy wax la classification internationale des maladies ci la ko retiré nag góor jigéen génne ko ci le 17 mai 1990 biñ ko ci génnee nag kon ñoom dañoo war a ñëw nag bokk ci société bi ak ak yelleef bu képp am góor jigéen yi tamit man ko am bi ñu doxee ñetti at ci la ñu daal di daje fële ca Autriche Vienne daal di def la déclaration et le programme de Vienne boo xam ni ci ñaar fukki at lañ ko tëral ngir mën a jox mbooleem koo xam ni góor jigéen nga te jëluñu la woon en compte ci déclaration universelle des droits de ñu mën la koo jox ci ñaar fukki atum liggéey document bi mi ngi nii ku ko soxla bu noppee mën nañ ko partagé bi Nations Unies defee lii nag liggéey ko ci diggante bi en 2005 dafa am benn ONG boo xam ni dafa sosu Louis George ki doon ko jiitee ñu koy wax IDAHO muy International Day Against Homophobia ñoom dañ daan daje rek di naqaatlu ci 17 mai bu nekk euh, soofanteel gi ni soofanteel góor jigéen ak seen àq ak seen yelleef ba 2005 ñu créé ONG bi biñ ko créé li ñu njëkk a def mooy lancer une pétition internationale ngir la Nations Unies jël dogal pour ñu boole ak ak yelleefu góor jigéen yi ci déclaration universelle des droits de l'homme loolu moo waral ci le 15 juin 2011 le 15 juin 2011 ci la Nations Unies jël benn résolution boo xam ni léegi nag boole na góor jigéen yi ñu am ak ak yelleef kenn sañatu la boddi nit ci gis-gis bu mu am ci sëy ak sëyin ak xar kanam boo xam ni moom la ca boole loolu le 15 juin 2011 la ko Nations Unies def bi mu ko defee nag daal di benn nattukaay ñu koy wax EPU EPU lii benn rapport la EPU bu muy examen périodique universel boo xam ne Nations Unies dafay woo état yi day woo Sénégal woo keneen woo keneen woo keneen en décembre la woo Sénégal bu buñ ko woowee ni ko ndigal liñ la joxoon foo ci toll liñ la waxoon nga soppi ko ci sa constitution liñ la waxoon nga soppi ko ci say loi ak i règlement foo ci toll Sénégal ni nangam def naa ko ci nangam maa ngi tàmbali di ko def nangam damaa amagul bunt ndax nangam ak nangam su ko defee ñu seetluwaat ñoom yan yoon ak xal lañ mën a digle ak tëral ko ba loolu ñu def ko lii rapport OPM bu 2013 yor nañu rapport yépp aussi EPI bi nag bu Sénégal di lu am solo daf ci amoon mooy bi Sénégal di dem amoon na téeméeri ndigal ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett cent quatre-vingt-huit recommandations Sénégal daanaka nangu na la ca ëpp bay mu des fukki ndigal ak ñeent yoo xam ne wax na ne du ko mën a def ñu ni ko li tax mënoo koo def mu ni sama askan bëgguñu ngóor jigéen te ndigal yooyu mu ngi jëmoon ci ngóor jigéen 2013 mi ngi ci rapport bi bi loolu amee nag Nations Unies mais Sénégal mooy kat réew moo xam ni day yalwaan yore nit ñi ay bor ba noppi ñu wax mu naan damaa am diine ñu ma gëm damaa am aada damaa am loo xam ni sama réew du ko noonu kon nañu xeex moom ci fànn boobu daal di tàmbalee def nag li ñuy wax pression te pression yooyu li leen ko tegtal. mooy dikk bi fi président bu États-Unis dikk 2014 ba ñu tëjoon lañu waxante man fekkewuma waaye ba ñu génnee lañu waxante mooy nañu léegi dépénaliser homosexualité président ni ko paree nii loolu bi ñu ko déggee rek lañuy xam ñëpp xam ni Sénégal tàmbali nañ koo xoj moo tax ñun ci suñu démarche lii ñuy def suñu kilifa yi dañ leen di jàppale ndax askan wi ñoo leen mën a jàppale pour xoj biñ leen xoj ñu génn ci pareeguñu nag ku nekk ci waajtaay koy wax xam nga ni lii mën a koo koo def waaye xëñ na ëllëg ci si biir xëñ na mën nga koo def ah yamul ci loolu Nations Unies daal di def beneen document boo xam ni 2012 muy ne libre et égaux document bi ñu génne ci juróomi ndigal muy cinq obligations la obligation juridique fondamentale des États pour la protection des droits des homosexuels. cinq obligations nga xam ak rapport yi réew la cay jiitu lii lay doon bu dul moom moo ca jiitu bokk na ci juróom yooyu ban mooy ginnaaw jox nañ leen àq ak yelleef en léegi nag état yi fexe ba góor jigéen ñi mën a manifester loolu dund seen jot seen àq ak seen yelleef ko mooy protéger les individus contre la violence homophobe et transphobe te suñu génnee di ko def am na ñoo xam ni jubluwuñu ngóor jigéen comme ñu ni état yi warteef bi njëkk ci li ngeen war a def mooy ngeen aar góor jigéen mooy premier obligation document bi ngeen deuxième obligation bi mooy su ngeen leen aaree ba pare rek loolu doyul. na ngeen fexe ba benn góor jigéen kenn dootu ko xañ àqam ak yelleef nañu prévenir violence bii am wala botti bi ñu leen di botti wala doyadal gi ñu leen di doyadal wala sax dal ci kaw gi ni dal ci seen kaw nañ fexe ba loolu bu mu amati mooy prévenir la torture et le traitement cruel inhumain et dégradant des LGBT LGBT mooy lesbienne gay bisexuel transsexuel intersexuel queer mooy loolu ba ci ñiy sëy ak néew yeeg ñiy sëy ak bàyyi ma zoophilie ak nécrophilie ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité nañu fexe ba benn yoon ci àdduna bu mu toppati ak ngóor jigéen wala ak góor mooy ñetteel obligation te bu leen fàtte ni obligation juridique laa wax fondamentale mooy dans les rapports wala relations internationales keneen la ciy doon maanaam lu mu ciy mën a wax lool la ci doon ñeenteel bi mooy interdire la discrimination basé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre mooy nañu tere boddi gi ñuy boddi ak benn gi ñuy ber góor jigéen ñi joxuñu leen seen àq ak yelleef loolu nag di lu am solo loo xam ni gouvernement bu Sénégal ci la sukkandiku pour liggéey document bi muy la SNED nga xam ne vision document bi mooy lan en deux mille euh, deux mille euh, deux mille euh, quinze lañ ko liggéey deux mille la tàmbali appliqué wu bu jëm deux mille vingt xam ngeen vision bi mooy lan faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination Sénégal yéen ñi may dégg samay kàddu fan ngeen fi xam ku nu boddi lu dul nit ñi nekk ci daara réew mi kenn boddiwu fi kenn lu dul nit diine yi donc lañ ci boddi ak ñu ne ci daara waaye bu ñu eggee ak yelleef bi fi sëriñ bi am ak ak yelleef bi fi donga daara bi am ak ak yelleef bi fi professeur bi am ak ak yelleef bi fi imam bi am ak ak yelleef boobu la fi góor jigéen bi di am te da koy am pleinement mu ngi document baa ngi nii Sénégal la ko liggéey ci tur askanu Sénégal aussi kon lii du ay wax jëf la waaye yemul ci loolu est-ce que gouvernement bi dafa def lii rek yem ci déedéet daf caa teg leneen puisque 2016 la war a tàmbali liggéey boobu jëm 2026 li mu njëkk def mooy puisque xam na ne mbir mi yoon na d'abord ba pare nañu dem ci ndey charte réew mi muy constitution bi constitution bi bu ngeen demee ci référendum bi bokk na ci li taxoon référendum bi ñu def ko ay ndigal la yu ñu jot yoo xam ne mënoo ko ñàkk def boo demee ci 15 points yi ñu joxe woon quatrième point bi moo doon la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens citoyens yi ay nit lañu kon ces nouveaux droits là ce sont des droits de l'homme citoyens ay nit lañu duñu ay garab ay droits de l'homme mais niñ koy formuler ci la ñuy réeral nit ñi waaye bu ngeen demee ci article vingt cinq alinéa trois lan la wax tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui mais qui man mii di wax bokkuma ci auto yi mais keneen ku mën a doon ci sénégalais yaa ngi ci auto yi mooy da nga tegoo te nangu li constitution bi wax ndey charte réew mi loi yi ak règlement yi jëf li wax sa digganteeg réew mi ba noppi nangul keneen ki àqam ak yelleef keneen ki mooy kan lii may wax mu ci constitution bu Sénégal loolu mooy premier ak bi ñu ci def kon góor jigéen bi mi ngi ci keneen ku dul góor jigéen aussi yaa ngi ci auto bi c'est constitutionnel li may wax biñ ko defee la ca tegewaat mooy xam nañ ni presse bii dafa am sol soo ko xisee jëmmal ci wàllu yoon da ngay fexe ba museler presse bi ba ku fi gisati lu la jaaxal doo am foo ko yuuxoo doo am foo ko mën a wax moo tax le ko code de la presse bu ngeen demee ci article 18 lan la wax bi ñuy wax yi ñu tere ci journaliste bi ak technicien des médias bi loo xam ne ñoo ngi koy dissuader ci mu wax ko mooy di wax di def allusion jëm ci nit ki ndax jigéen la wala góor la wala nangam mooy pas-pasam wala barab sàngam la soqikoo ci réew mi wala boog góor jigéen la orientation sexuelle dañ ko digg noir sur blanc ci code boobu pour la première fois ba Sénégal di Sénégal ba tey ñu bind góor jigéen ci suñuy texte de loi waaye léegi ki def lii ba noppi ni la duma ko daganal lan nga koy wax li mu wax ak li mu jëf bokkul kon loolu mooy li nga xam ni foofu la mbir mi toll kon nag su fekkente ni yëf yi dafa toll fii ku xam te xam da gis ni loolu 2017 la woon 2018 ñu teg ci leneen mooy ñun ñi ñëpp suñ permis de conduire yi ku ko génne da nga gis ni sexe nekkatu ci mais genre la ci def ba ci évaluation ren jii école primaire CI test yi leen jox nga xam ni depuis école sénégalaise yépp public bi moom lañ leen test këyit yi leen joxoon xale yu ndaw yi suñu doom yi am juróom-benn at bu ñu ñëwee def turam santam 6 ans la am classe nangam daal di def sexe au lieu de sexe ñu def genre kon du bett kenn bu fi ministère du genre amee ci biir réew mi bon bien vrai que ni ñoom danañ wax yu baree baree baree baree waaye su fekkee ñoom la ñuy wax dëgg la genre man lan la wut si ci sama permis de conduire lan la ci si yamul ci loolu parce que objectif visé bi mooy disloquer la famille loolu moo waral fi ne suñ carte yu bees yi nii sax amatuñu ay ndey ak baay parce que foofu lañ jëm finalement li ñuy wax naan mbir mi dëgg dëgg dëgg dëgg nit ñi xamuñu ko xamuñu waaye fa jëm yeggaguñ fa te buñ fa yeggee dañ xam ne amul ndox mooy suñu carte yu bees yi CEDEAO yi ndey parce que effectivement il faudrait que nit ñi laa famille ñu disloqué ko ndey ak baay dootul ko loolu nag moo waral yii ma lim ak yu ma limul ngir bañ a guddal lenn lu ci nekk réew mi mi ngi ciy dox ay jéego waaye li ci gën a metti mooy askan wi xamuñu ko te it informé wu leen yëguñu yëguñu ma fàttali ni lii nañu xam ni ci turu askanu senegal lañ ko def waaye ñoom lañ ko defal itam ci suñu tur lañ ko def waaye ñun lañ ko defal kon kuy sénégalais na nga xam ni ci sa tur lañ ko def waaye dafa mel ni yaa ko laaj ñu defal la ko itam te sa alal la ñuy ngir jëmmal ko ngir suuxat ko ngir sàmm ko ba mu law ba mën a màgg kuy sénégalais rek na xam loolu kon leer na ni mbirum borom ñaari tur yi ci réew mi Sénégal dafa am ñaari phase yoo xam ni ci la ko bëgg a benn bi mooy la phase d'institutionnalisation mooy bi ma lim léegi bi jël na ci ay loi teg na ay institution mais teg na ay mécanisme mi ngi doxal ci suuf te du leeral askan beneen phase bi ci des nag mooy la phase de sociabilisation wala boog d'acceptation de la société ngir askan wi mën koo nangu ñoom dañoo ciblé ñeenti tomb li ci gën a bari benn bi mooy fexe ba jaarale ko ci ay porteurs de voix ay nit ñoo xam ne am na ñu leen di déglu am na ñu leen di roy ñu fexe ba mbir mi jaarale ko ci ñoom mu woyof beneen bi mooy fexe ba utiliser lépp luy ay média tey jii gis ngeen théâtre yi tàmbalee am Sénégal bi waxuma sax film yi ñu jëlee bitim réew nga xam ni film buñ la ci tegal léegi ay góor jigéen nekk ci waaye film ci théâtre yi ñuy def ci biir réew mi rek léeg-léeg nga gis ay góor jigéen nekk ci moo xam jigéen góor la moo xam góor jigéen yooyu ngir di ko woyofal ci xelum surtout xale yi te waxoon naa fii biñ fi mujjee daje ni loolu ku ko xeeb da xamul li ngay xeeb dafa am kilifa boo xam ni foo taxaw ci réew mi xam nañ damay waxtaan ak moom ci salon mu ni ma en walla wala 90 nee na damaa am information ni dafa am ñaari film yu ñu bëgg indi Sénégal muy Dallas ak Dynasty nee na ma woo président Abdou Diouf ni ko ah lii de bu ñu seetaanee ba mu daw ci réew mi réew mi yëpp dana yàqu nee na mu invité ma ma dem ñu waxtaan ci ma jóge fa dem Jaksaaw fekk fa Alaaji Abdou Aziz Dabakh ni ko sëriñ am na ñaari film yoo xam ne ñoo ngi koy waaj a indi di ko fi dawal waaye su ngeen seetaanee mu daw fi mboolem lu fi maam El Hadj Malick sampoon ci lu baax dana ci yàq lu bari. nee na ba ma fa jógee dem Touba fekk fa sëñ Saliou Mbacke ñi ko sëriñ bi ñaari film ngi ñii ñuy bëgg a dawal ci réew mii ñu koy wax Dallas ak Dinas suñu seetaanee ba mu daw fi mboolem lu fi sëñ Touba jëmbatoon ci lu baax lu bari dana ko ci gàncax. nee na lu ma mën def naa ko ci nee na naa ci ay menaces am na ñu ma ci tëkku ñàkk naa ci sama xaalis dox naa ci guddi dox naa ci bëccëg nee na terewul film yi dox daw ci réew muy Dallas ak Dinaas nee na ñu toog juróom-benni at après 97 nee na ma toogaat yaakaar naa Dallas lañ teg dawaa daatoon 97 nee na ma toog sama salon ñu teg Dallas ma seetaan ba mu jeex benn épisode ñëw nee na ma seetaan beneen ñëw nee na ma seetaan. te dara naqariwu ma ci nee na ci laa xam ne diggante 91 ak 97 am na lu ma fi ñàkk maa xamul lan kon suñ nee def loolu ci mag ndaw ñi moom waxaale wu ma nga xam ne yëf yi miinal nañu ko banaliser ko ba finalement kenn ko ci ne su subconscient accepté na ko fi nekk kon médias yi dañ ciy jaar te loolu ñun ñëpp am nañ ci responsabilité mbokk yu tedd yi ñëpp ci am responsabilité. nit ku yaakaar ni àdduna da nga fi sañ wax maa nga def loo xam ne doo ko leeral sa bàmmeel xamoo sax li xew wa kulluhum aatiihi yawmal qiyaamati fardan nit nañuy bàyyi xel loolu c'est-à-dire bi ak wut effréné alal ak nañ ma suivre bu mu war a tax nga man lu la neex nga wane ak nga def beneen bi mooy ci xeex ndóol danañ ci jaar ci encadrement surtout yi ñuy encadré ndaw ñi ak jigéen ñi ndax ku bëgg a yàgg askan ci ndaw jigéen ngay jaar xaalis bi teew léegi léeg nga dem séminaire booy wàcc ñu jox la benn deux cent mille liñ lay wax da ko dégg ci leen di jaar dañ leen di jàpp bëgg a génn ci su ko defee yi tamit ñu ko ci booxal dànk dànk jigéen ji wala ndaw li nga accepté ko déedéet nga doon ko waaye mooy au moins tolérance danga ko ci am te loolu dana influer ci mbooleem njaboot boo am na ci ëllëg ñeenteel bi nag mooy ëpp démb li fi xew ci tabaxaat beneen société boo xam ni génération boo xam ni pour gay la ñuy doon te loolu école rek ko ko mën a jaar lii moom mooy deuxième phase bi ci la ñu fi ne Sénégal nekk di liggéey kon nag ñun suñu xamee lii ci ànd sàmm jikko yi mënatuñoo toog ndax xam nañu responsabilité bi aju ci yi ñëpp ci am responsabilité ginnaaw ñëpp ci am responsabilité nag ñun def nañ quarante cinq région yi département yi plutôt dem nañ aussi ci kilifa diine yi yépp waxtaan ci ak ñoom ba démb rek maa ngi jokkoo waat ak bois sacré bi maa ngi jokkoo aussi ak le secrétaire général de la conférence épiscopale di jokkoo aussi ak secretaire particulier bu monseigneur Benjamin Dème maanaam amul ku ñu setti amul ku ñu seeti amul ku ñu waxtaanal ak ci yow ci lii ndax lu ñëpp set la ñu ngi may wax waxtu wi waaye gis ngeen kayit yi ma yoon yëpp signature xalifa généraux yi ñoo ci nekk ay leader syndicat association islamique yi ak mboolem kilifa yi nga xam ne si ay mbooloo ci seen ginnaaw dinaa ci wane xëñ na ndax yépp laa bëggoon a wane waaye dana am ñaar ba ñett yu ma ci wane rek ngeen mën koo gis xam ne lii ñuy def kilifa diine yi ci biir réew mii lanu ci àndal te gis nga réew mi dafa am ay réalité bërki démb rek jógee nañ ci mbir moo xam ne xam ngeen ni Sénégal réew yu bari li fi xew bërki démb bari na réew yoo xam ne fa xewal ba tey réew mu tàkk kenn waxatu ko te pourtant fu mën a àgg réew mi tey jii nit ñi boroomi kilifa lañu bu seen kilifa waxee ñu dégg moo tax bi kilifa yi àddoo rek ñëpp ne nañ bàyyi nañ liñ jàppoon kilifa yooyu nag fi mu ne ñoo ànd ak ñun ci lii dana ci doy rek ma wane ni lii sëñ Babacar Sy Mansour moo ko suñu xalifa général des Tidianes noonu mu ko signé gis nga yii yëpp ay signature xalif généraux ñoo ci nekk lii xalif général day xaar lu moo ko signé noonu lañ koy toppe ba yépp jeex lii xalifa Medina Gounass moo ko signé suñu noppee nii ci sëñ Muntaxa la ñuy mujjee bu ñu demee jël signature waaye xalifa yëpp seeni signature mi ngi nii moom la ñu jotagul bosam dañuy dem jëli ko incha allah noonu la association islamique yi ci Sénégal ñëpp signé aussi ñoom ñëpp seeni signature mi ngi nii mayoon mi ngi nii association islamique yëpp jamaatul Ibaadu Rahmaan Alfala Daarul Istiqaama Riis al Wahda mboolee seen ñoom ñëpp seeni signature mi ngi nii mboolem association imam bi aussi muy ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal LIPS imam Dame Ndiaye moo ko jiite signature am ngi fi ANOS aussi muy association imam yi imam Moustapha Gueye jiite aussi seen signature mi ngi nii ma yor ak mboolem yeneen kuréel ak bànqaas yi fi nekk kuréelu médecin yi kuréelu enseignant yi kuréel yi mboole seen yu ndaw yi ñëpp fi mu ne i signature mi ngi nii ñu yor bu fi doon xaj dama ko jël benn par benn kenn ku ci nekk ma wan leen pour wan leen ni Sénégal lañ ci àndal sëriñ daara yi aussi ñëpp muy fédération nationale des sëriñ daara maître coranique muy aar daara muy euh, rabita bi ñëpp ñëpp ñëpp signé si aussi kon nag foofu lañu toll ginnaaw ñëpp signé nañu nag te dox nañu wax ak nit ñi ba pare léegi nag li ci des mooy ñu xam leen dañuy tënk dossier yi saisir gouvernement bi saisir aussi député yi am na député yu bari yoo xam ne seen i signature aussi mi ngi ma yore pare nañu pour ànd ak ñun porter proposition de loi bi yóbbu ko à l'Assemblée nationale waaye de la même manière danañ saisir le gouvernement du Sénégal ndax ñun ñoom la ñuy jàppale ñoom lañ fi ñun lañ fi nekkal aussi askan wi bëgguñu ko dégg nañ ko ci ay yoon yu bari président wax ko ni réew mi moom askan wi duñ ko accepté gouvernement bi amuñu ci problème waaye askan wi moom beneen mbir la lool kon askan woowu moo bëgg a ñëw dimbali ko ci guuta gii ñu ko bëgg a dugal te mu mën a indi fitna ci réew mi ñu fexe ba loolu ñu éviter ko parce que lii duñ ko mos a nangu ci réew. lii moom mooy li nga xam ne moom mooy li am su ko defee nag wax ak sénégalais yi dafa am loo xam ni ñun suñuy kilifa jaaroon nañ ci liggéey fi liggéey bu rëy ñu mel ni dañ ko bëgg a delloo ginnaaw neenal ñun loolu duñ ko seetaan te suñu bakkan du ko seetaan. waaw allah takbir loolu mooy la mooy Sénégal bi ñu indee pot de la famille gis nga kilifa diine yépp dañoo def benn kàddu Alaaji Seydou Nourou Tall mii moo ko jiite sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh moo tokkoon ci moom sëñ Cheikh Mbacke moo doon secrétaire général bureau bi Cheikh al Islam xalifa Medina Gounass xalifa yépp ci lañ bokk ñoo toog. càmbar code bi génn ci 74 articles rédhibitoires 74 waaye li tax lañ bëggoon moom sottiwul mooy dañoo wax ak président ni ko lii duñ ci ànd tey duñ ci ànd suba muy président Senghor Senghor ni leen li ngeen bëgg lay def ñoom nag jàpp nañu nit du wax lu dul dëgg moo tax bi mu leen waxee loolu kenn ku ci ne dellu ca la nga nekkoon ñoom ñu def leneen sëñ Abdoulaye def déclaration ni. code de la famille du dox Touba loolu dafay baax sénégalais xam ko sëñ Madior Laye def déclaration ni code bi du dox Yoff ak Cambérène Alaaji Abdou yi bayit yam ca defoon ba léegi nit ñi wax wu ci nekk nit ñi di ko jàng di ko fàttali cheikh al islam def ci xasida sëñ Cheikh Mbacke def ci xasida ñoom ñëpp ñu wane ni nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg quatre-vingt-quinze ñu yëkkatiwaat liggéey boobu ni jaaduwul suñu kilifa yi dox jéego yi toll nii ba noppi ñu neenal muy sirkof ñoom im euh, maître Babacar Niang sëñ Abdou Aziz Al Amine di ko coordonné ñu ci dox ba deux mille dix quinze ans de travaux deux mille dix ñu bind benn texte benn code boo xam ni un code musulman moom lañu ñuy wax le code de statut personnel ñu jëbbal ko un député Imam Mbaye Niang mii moo ko porté woon déposé par l'Assemblée nationale waaye ñu sànni ko ci àll te la ko jiitu dix xalif généraux signé nañu pour ni loolu ñoom ànd nañ ci la code musulman la kon moo tax ñun tey suñu démarche xam na ne suñu ñemee ci signature yi rek fa yee jaaroo fi la giri jaar le 23 mai incha allah 2021 ñoo ngi woo képp koo xam ni bëgg nga Sénégal gi képp koo xam ne si gëm nga yàlla gëm nga bis penc dana am ñoo ngi lay woo ñu def rassemblement bu musul am ci Sénégal ndax ñii fi nekk tant que jógoo taxaw jàpp nañ ni ñii lu ñu wax ay waxi gone la ngir ñu dellu ginnaaw ci processus bii ñu lancé ba noppi defal ñu loi bi ndax constitution bi moo ñu ko may. ñu defee ko fan. place de la nation xam ko ci Colobane place de l'Obélisque ndax fa lañ def woon suñu manifestation bi am réussite lool macha allah te imam Dame Ndiaye ñu jiite woon ko. muy NSI bi fa la ñuy woo képp ku nekk ci Dakar ndax 45 départements yi desit fu ci nekk dañ ko fay defandoo ci même waxtu ngir Sénégal gépp génn message boobu suñ kilifa yi danañ ko mën a ñoom jël dana ne Nations Unies gis ngeen askan yu bëgguñu bi yëpp lobby yi gis nga askan yu pare ñu pour nangu su ko defee loolu dana doon dimbal ci ñoom waaye dana doon aw lay ci ñun aussi ci ñun li ñu jot ci ak mbaax ñu fexe ba au moins lu néew néew néew ñu jox loolu suñu njaboot waaye dana doon aw lay aussi ci ñu sécuriser réew mi ëllëg ndax constitution bi moo wax ni askan wi ñoo moom réew waaye dana doon suñu lay ëllëg ci kanamu borom bi bu ñu dajee ak moom jëf ji ñu ci jëfoon dana taxaw seede ñu ne ñun kat nañu ak lu mën a xam kon lii mooy le sens la portée bu démarche bi ànd sàmm jikko yi am am xalaatu associé ci ñëpp ñu àndandoo ko ndax dul am sam jikko yi rek di revendiquer waaye askanu Sénégal moom mooy revendiquer lii mooy góor jigéen bu am ci Sénégal tey du fi am ëllëg ngóor jigéen du fi dagan tey fi dagan li ñu bëgg mooy une loi bu koy criminaliser mu jeex tàkk président na favorable kilifa diine yi ñoom nee nañ bëgguñu ko fi askan wi nee na bëgguñu def loi bi mu jeex loolu rek moom jënd wax gaa yi kenn bëgguñu président bëgg ko man d'accord naa gouvernement bi bëgguñu man d' accord na député yi neenañ bëgguñu d' accord na donte mbiri si la dañ ko yëkkati yéen am na ko ko woo jàpp ci noppam ni ko tegal ci suuf askan wi bëgguñu nee na d' kilifa yi diine yi neenañ bëgguñu ko fi dañ def loi bi mu jeex parce que ñu bëggu yëf yi loolu rek la kon lii rek moom moo doon wax di wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu